bu ñu waxul bu ñu ñibbee dina leen gàcceel suñ daan nee na dañuy feebar ndax dañoo am na man koo war la koo noppi yu bari lii histoire la ni 14 février sëriñ bi ko ci yàlla waxoon yaay man maa yeew kon bi histoire ci képp koo xam xam na la saxoo Touba moom la ñuy wër yàlla jaarale leen ci say saan waaye seen tuuti di seen ceeb ñu àndal moom 90。9個目の moom la suñu chef de moo la toog bi ma ñëw dina ko doyoo woon kër ne yow la man maa am na ko am na ko dégg ñu ko dégg daaw nañ ñëw xool essa ferramenta. E agora é doomi soxna bokk ci kër gi ci yàlla mais dama bëgg Serigne Touba dama yàgg Serigne Touba Serigne Béthio yar ma nag ma yàggal moom la ñi xam na ci dara li ma am kay ñi xam na ci dara mu yàgg lool mais ginnaawam njabootam yëpp woote mooy nit ñi woote leen ñun looloo sabab ma ne la xaw ma yónni yónni looy def def loo am looy wax lu wax loo am ndax man sa njaboot laa ndax sëriñ Cheikh Béthio sama baay kon yow suñu may lu nekk ba ñu bàyyi bi jeex ñu leen suñu kàddu suñu laaj la ñu bu ñu ko def wa maa zaalika alaa Allaahi bi aziiz assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu nit fa muy jege di fa nekk di ko jege di fa jóg te ñun jiit nañu l'islam bi mu yor ñun arrangé nañu ñun l'islam bi mu yor arrangé nañu xam nga ban l'islam la yor booy ñëw jënd gaz bi ak tegu ci péage bi boo delloo toog ñetti fan bu la neexee bañ a génn boobu lislaam ay wër man ay yi téere yi moom moom baax na ndax jàngi naa ko ba ñëw ay yi ak téere yi ak not yi masala yi moom baax na moom parce que jàngi naa ko ba ñëw xam naa bi ma xamagum tey te mënaguma wax naa léegi ne ñoom million ak or damaa yaakaar bi ma xamoon ak ñoom million dëgg kon soxna Aja Ayda barke bi waaye jëm jum nekk xam lii nga yor parti la te du yow de waaye du ma tax a soj de waaye yi ma gis fii gisuma ko feneen kon soxna Ayda yal na yàlla doon la taxaw yal na yàlla la sàmm yal na yàlla la aar yal na yàlla la jàppale nii ngeen ànd daal neex na nii la ñuy ànd ba ca kanam seen Cheikh Béthio ci barke Yonent bi ñu ànd ak moom ba ca Serigne Saliou ànd ak moom ba ca Cheikh Mat Bamba mu ànd ak ñun nag ba ca Yonent bi nii la ñuy toog ca yoor yoor ba nag Islam ñun sax ay siraatal yooyu duñ ko gis ñun ak yéen a ngi leen di dégg man de. asalaamaaleykum wa rahmatulah.